Daniel Diouf jërëjëf ca Matam la ñu jëm foofa askan wa nag ñoom ñooy laaj eh, lu tax Abdoulaye Wade jàppee maatam googu région bay wax ay projet yu mu fa def te dara amu fa loolu nag tax na ñuy soññ kii di président bu bees bi di Macky Sall eh, ci na gën a farlu ba diwaanu Matam boobee eh, ñu def région mu wuyoo trouwa ni yeneen région yi ci Sénégal Adia Talla ak Yaya Diallo maatam di fukk ak benneelu région amul dara liñ fa taxawal li tax nit ñi mën a am liggéey tabax yëpp màgget yi ñu dooroon bu yàgg sax ñoo ngi bëgg a màgg ba askanu Matam xamal nañ ne dañ leen a fàtte ñuy rafetlu lu ñu bokk si ñi daaneel njiitu réew Abdoulaye wàdd mi leen doon tëkku. bi ñu xamee maatam ba léegi luñ leen lu mooy la def chantier mooy def na maatam région si le plan infrastructure benn yoon baaxu fi. amuñ benn infrastructure bi nga xamante ne góor gi taxawal na ko fii bu ñu war a mën a ne bii am na fi de telle sorte que ñun wax boobu mu wax gis na tey résultat bi ci diwaan bi moo taxit ñu koy ñaawlu baax parce njiit bu ñu la njiitalee dafa am yenn wax yoo xam ko war a sàmm. xoolal tey trésor doo demee chantier nga fay fekk boo demee gouvernance amul chantier conseil régional amul bâtiment dafa loué service yëpp presque dañu loué impôt et domaine dañu loué donc man je me franchement ban chantier la fi def. amul dara loo xamante lu góor gi taxawul fii si diwaan bi ay projet ñoo fi nekk mooy pont Matam stade régional boo demee tey jii mën ngeen ko doo la fa gis dara comme matériel. nguuru askanu Matam di am yaakaar rek ci seeni ëllëg mu gënal leen ñuy ñaax Macky Sall di jiitu réew bu bees bi ñu tàbb mu bàyyi xel ci ñoom. ñun dañu bëgg mu àggale ñu yoonu Linguère Matam ki ñu fasse les ponts nu loolu lañu ko laaj nguur bi xaw ma euh, dund bi bu dimbali ñu ci dund bi les gens sont fatigués fii ñuy immigré rek ñoom fi dund normalement. mu dimbal encore xale yi ñu am liggéey parents yi sonn nañu retraité nañu war nañu noppalu. doom yi def relève dimbale leen. ci campagne bi fi maître Abdoulaye Wade tëkkoo askanu maatam Macky Sall moom dalee a dikk defar seeni région kii génn woon na digee ñi ko gëm rek la yitteel ki koy wuutu xamal na ni lépp lu mu digee rek dina ko def.